yaa asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu leen ziyaara di jiital ci nuyoo beeg ziyaar bi Cheikh Modou Mountakha Mbacké Bachir xalifa général di mourides di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal it mbooleem kilifa diini yépp mbokk yi ñu nekk ci weeru koor ñuy amal ay reportage ci naafile yi nga xam ne ñoom la ñuy amal ci daara yi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bu sell bi di Touba. ñu doxantu woon nag demoon ci daaray sëriñ maam sëriñ Bousso nekkee ci yoonu baxdaat bi di daara joo xam ne dañu fay jàngale alxuraanul karim ak a yar ci yarub lislaam sëriñ maam sëriñ Bousso nag nekk koo xam ne taxawaay bu am solo lool la am ci mboolem ndongo yi nga xam ne moom la yore di leen jàngal alxuraanul karim bi ñëwee nag fekk nañ fa délégation boo xam ne ñu ngi bàyyee ko woon ci sëriñ El Hadji Fallou Bousso moom sëriñ Abdou Kharija di xalifa sëriñ Ibrahima Bousso mu nekk délégation boo xam ne dañoo ñëwoon ngir soññu ndongo yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji ndax li nga xam ne moom lañ nekk moom rek la sëriñ Touba bëggoon ci dëkkam bi muy jàng alxuraanul karim rawatina ci ndaw ñi ci weeru koor gi nag ñoom dañuy amal ay naafi la naafi la yoo xam ne ndongo yi nekk ci daara ji ñoo koy jiite ci alxuraanul karim kon mbokk yi ñu fas yéene ànd ak yéen ginnaaw julli gee gi nga xam ne amal nañ ko fi ci naafi la gi nga xam ne ndongo yi nekk ci daara ji di fi jàngi alxuraanul karim ñoo ko jiite bokk na ci sëriñ Baara Ndiaye Baye Jili Bousso Baye Modou Bousso Baye Abdou Bousso ak sëriñ Cheikhouna Mbacké kon mbokk yi ñu ànd ak yéen ci jullit gee gi ak naafile gi nga xam ne moom lañ amal ci daara ji nga xam ne di daara Taysiir bu sëriñ maam sëriñ Bousso allahu akbar allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina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 وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين فقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في محسله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي إلى جبل يحسمني من الماء فقال لا هاسم اليوم من أمر الله إلا من رحمه فحال بينهما الموج فكان من المقرحين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيل الماء وقيل الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح fala tasal li ma laysa laka bi ilm inni aisuka an takuna min aljahilin qaala rabbi inni ausu bika an asalaka ma laysa li bi ilm wa illa taxfir li wa tarhamni akun min alxaasirin qiila ya nuhu bi bisalaamin minna barakatin alayka wa ala umamin man maak قوم سنمتهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله خير إن أنتم إلا مفترون yaa qawmi laa as'alukum alayhi ajran in ajriya illaa alaa allazii fataranii afalaa ta'qiluun wa yaa qawmi istaghfiruu rabbakum summa tuubuu ilayhi yursili samaa'a alaykum midraaran wa yazidkum quwwatan ilaa quwwatikum wa laa tatawallaw mujrimiin qaaluu yaa huudu maa ji'tanaa bi-bayyinatin wa maa nahnu bitaarikii aalihatinaa an qawlika wa maa nahnu laka bimu'miniin in naquulu illaa iftaraaka ba'du aalihatinaa bisuu'in قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنصرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من ضابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما رسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما خيركم ولا تدرونه سيئا إن ربي على كل شيء حفيظ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

wa ilaa samuuda axaahum saalihan qaala yaa qawmi a'budullaaha maa lakum min ilaahin xayruhu huwa ansaakum minal ardi wasta'marakum fiihaa fastaghfiruuh summa tuubuu ilayhi inna rabbii qariibun mujiib qaaluu yaa Saalih qad kunta fiinaa marjuwan qabla haazaa atanhaanaa an na'buda maa ya'budu aabaa'unaa فإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني من رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني خير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فسروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب خريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد خير مكسوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه bi rahmatin minna wa min xizyi yawma is yawma is inna rabbaka huwa alqawiyyu al-aziz wa akhza alladhina salamu sayyi'atu fa asbahu fi diyarihim jasimin kan lam yagnaw fiha ala inna samudan kafaru rabbahum ala bu'dan li samud ولقد جاء رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بحجر حنيس فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرا وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط فامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قال يا ويلتى ألد وعجوز وأسى بل سيقا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتحجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ساب عن إبراهيم مره وجاءته البصرى يجادلنا في قوم لود إن إبراهيم لعليم أواه منيب يا إبراهيم أخرج أنهاسا إنه قد جاء أمر ربك وإن ماتم عذاب خير مردود ولما جاء رسولنا لوطا سيئ بهم وداخ بهم سرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يرقون إليه فمن قبل كانوا يعملون سيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تحصون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن سديد قالوا يا لوط إنا رسول ربك ليصلوا إليك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

asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. allahu akbar. allahu akbar. auzu billaahi mina shaytaani rajiim.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 إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا قالوا يا شعيب صلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ونفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأن أنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم ألهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يغذيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاءنا نجينا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا به من ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها لا بعدا لمدين كما بعد الصمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفض المفقود ذلك من أنباء أي القرى نقص عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تطبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نوقره إلا لأجل معدود الله أكبر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 يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز فلا تك في مرة مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ينقص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب رقيب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنظرون وأقم الصلاة طرفي النهار وظلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نصبر به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن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 قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناسقون أرسله معنا قد يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا بي وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أجرموا أن يجعلوا في غيابات الجب وأوحينا إليهم لتنبأنهم بأمرهم هذا هم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصي بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله والله المستعان على ما تصفون فجاء السيارة فأرسلوا واحدهم فأتلى دلوه قال يا بصرى هذا غلام وأسروه بداعة والله عليم بما يعملون وصروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الظاهرين فقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه يعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ سده آتيناه حكمه وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمين ولقد همت به وهم بها قالا لولا أرى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف صيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وصيد صائر من أهلها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 يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من القاتلين وقال نسبة في المدينة امرأة عزيز تراود فتاة عن نفسه قد سغفها حبا إنا لنراها في دلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعطت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن عاصي الله ما هذا بصر إن هذا إلا ملك كريم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 السجن أما أحدكما فيسقي ربه قمرا وأما الآخر فيسجد فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنسعه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات قدر فوق يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤيا إن كنت كنتم للرؤيا تعبون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فاصلوه يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر أو يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما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 nusiibu bi rahmatina man nashaa wala nudii'u ajra al-muhsiniin wala ajru al-aaxirati xayrun lilladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun wa jaa'a ixwatu yuusufa fadxaluu alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkiruun walammaa jahadahum bijaadihim qaala a'tuunii bi-axin lakum min abiikum alaa tarawna annii uufi l-kayla wa ana xayrul munziliin كثير فإن لم تأتوني به فلا كيد لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون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 ولما فتحوا متاعهم وجدوا بداعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بداعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونخفض أخانا ونذلك إلى بعير ذلك كيل يسير قال نرثه معكم حتى تؤتون موشقا من الله أتتمني به إلا يحاط بكم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 قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما اتيأتوا منه خلفوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم وثقا من الله من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي هو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك شرك وصدق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وصل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون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 يئس من روح الله إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا مسنا وأنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف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 وكأي من آية في السماوات والأرض والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب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 ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغير الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعان سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسالم بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يستر من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال الله أكبر الله الله أكبر قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلة أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى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

ربنا ginnaaw naa fi léegi délégation bi nga xam ne moom la fi sëriñ El Hadji Fallou Bousso yabaloon am nay kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati nañ ko fi soññaat bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñi soññ ndongo yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji waaye soññewaat ci solo bi nga xam ne alxuraanul karim am na ko ginnaaw bi it dëkkandoo yi am na kàddu yoo xam ne yëkkati nañ ko fa di seere taxawaay bi nga xam ne sëriñ maam sëriñ Bousso am na ko ci quartier bi ak mboolem ndongo yi nga xam ne moom lay taxawu ginnaaw bi it sëriñ maam sëriñ Bousso am na kàddu yoo xam ne yëkkati ko kon mbokk yi ñu ànd teewlu mboolem kàddu yi lee aùzu billaahi mina wa sallallaahu alaa wa alaa aalihi wa sahbihi aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bokki jullit yi bokki taalibe ginnaaw ba nu leen nuyoo siyaar leen tey jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi sunu sëriñ sunu xalifa sëriñ maam sëriñ bu mi nu fekk si ngay nuyu bu baax te di ko siyaara boo leen gisee sunu teewaay sunu xalifa sunu sëriñ Bousso mi nga xam ne mooy jëmmi Serigne Ibrahima Bousso ñuy ñaan mu yàgg fi te ñaanal Serigne bi ñu fekk si muy sunu Serigne maam Serigne Bousso moom it mu yàgg fi te wér ak bokk jullit yëpp ak taalibe yëpp ñu ànd ak sunu xalifa ak sunuy mbokk sunuy doom sunuy jarbaat jóge ci sëriñ bi mu amoon kaddu yoo xam ne kàddu yi soññee la kàddu yi cant la kàddu yi dollante may ubbil sëriñ Abdul Xaadir nga xam ne moo kàddu sëriñ bi di sëriñ Alxaaji Fàllilu jàllale kàddu yi nga xam ne moom la ko sëriñ bi yónni ci jaboot gi ci taalibe yi ci jëwrinam sëriñ maam sëriñ Buso nga xam doy na ko sëkk ci jëwrin muy jëwrin kër sëriñ Ibrahima Buso bu noppee ñu doog a jàllale kaddu sunu sëriñ maam sëriñ ñi nga xam ne moom it daf ñoo joxaat ndigal ci biir ndigalu sëriñ alhaaji kàddoom du ko dugal ci biir kàddu kaddu sëriñ alhaaji Bousso kon ñu jox sëriñ Abdou Khadir Bousso bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. gannaaw ba ñu sant yàlla jële ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ñaanal alxalifatul am li tariqatil muridiya Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal suñu borom mu guddal aw fanam te wéral ay cëram ba lim yéene liggéeyal Cheikh Ahmad Bamba mu àggale ko waaye lépp ñu ko moom gannaaw loolu kon mbokk yi ñu leen di nuyu baax di leen si siyaara waaye di jiital ci nuye bi ni ko sëñ Moodu waxee léegi xalifa sëriñ Ibrahim di sëriñ Alxaaji Boso ñu ñëwee ci aw waaye di waxee ci ak kàddoom ñu koy ñaanal moom it suñu borom liggéey bii mu ko dénk mu yan mu woyofal ko waaye te mot li yéenam mboolem ñu nekk ci ginnaaw ñëpp suñu kàtt kàttanal leen te dëgëral leen ban ànd ak moom liggéey bi waaye di nuyu borom barab bii ñu fekk ci muy jëwriñu sëriñ Alaaji Buso di sëriñ maam sëriñ so waaye ci barab bu màgg bu tedd bii di barab bu alxuraanul karim muy barab boo xam ni eh, la ko tax rek mooy alxuraan te bu ne alxuraan wax sahru ramadan kon bu ne sahru ramadan wax alxuraanu karim muy ñaari eh, muy ñaari yoo xam ni ñoom la suñu borom booleendoo dajaleendoo leen ci benn weer ci alxuraan jooju nag incha allah ci leen fas yéene soññante ndax ku xam weer wi xam ne weeru màgg la waaye weer wu bari ay ngëneel la weer wu bari ay njariñ lool te la ko waral lépp dañuy delluwaat rekk ci alxuraanu karim ndax gis nañ ne alxuraan mi ngi wàcc ci weeru mag wi di samaru ramadaan loolu nag yaakaar naa ku ci bëgg lu leer rek mën ngaa dellu ci alxuraan da nga fekk boroom alxuraan di ko firndeel boppam di wax ne ci weeru yi ci lan wàccee alxuraanu karim alxuraan moomu nag di téere bu mag lool waaye téere bu suñ borom fonk muy wax yi gën ci mbooleem xeeti waxe yëpp ndax dafa nekk waxi suñ boroom alxuraan moomu nag niñ ko waxee léegi eh, ci guddi ci weer wi lam wàcce waaye nag ci genn guddi goo xam ni moom la ko suñu borom jagleel te mooy laylatul xadri ñu ñaan suñu borom nag mu àgg lañ ci ñu àgg ci jàmm ndax alxuraan eh, ni nga ko waxee léegi dañuy gis ne suñu borom kat fonk gi nga ko fonk tax na kon mu jagleel ko aw weer te mooy weer wi saxru ramadan allazi unzila fi alxuraan xudan linnaas wa ba minal huda wal furqaan kon loolu day tegtal ne kon alxuraan ci weer wi la wàcc naka noonu tamit lay firndeel ne alxuraan ci weer wi la wàcc suñu borom demee ci alxuraan yi fekk mu naan. ñun yàlla kat ñoo wàcce téere bi di alxuraan ci guddi gu màgg gu tedd gi di guddik laylatul xadri inna ansalnaahu fii laylatin mubaaraka naka noonu tam inna ansalnaahu fii laylatil xadri kon yooyu yëpp day tegtale na kon alxuraan mi ngi wàcc ci guddi gu màgg gu tedd gi di guddik laylatul xadri waaye ku wax guddik laylatul xadri wax sahru ramadaan kon day wane ne suñu borom Eh, fonk gi mu fonk alxuraan tax na mu wàccee ko ci weer wu gën ci weer yi te mooy sahru ramadaan naka noonu bu ne alxuraan xel yëpp day dem ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne moom la suñu borom njëkk dénk alxuraan ndax suñu borom alxuraanam ji da koy dénkaane ñam koy dénk nag da koy tànn te kam njëkk tànn mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax ci moom la suñu borom wàcc alxuraan sàmmee ko ci moom gannaaw ba tamit suñ borom sàmmee alxuraan ci ña toppee woon yonent bi te mooy ay saxaabam te mooy alxulafa arba buñ ci limee Aboubacar Omar Ousmane Ali waaye ku mel ne ki Abdullah ibn Mas'ud ak Abdullah ibn Abbas ak yeneen i saxaaba yoo xam ni suñ borom bi mu nammee dénkaan alxuraan ci ñooñu la ko njëkk a jaare gannaaw ba tamit yeneen saxaaba yi ci desaat yëpp suñ borom dégg na leen alxuraan ba nin fi jógee ba nin fi jógee moom it eh, mu dénkaat ko ñeneen ñee ci toppaat te mooy taabixaan yi ba nim ci eh, ñun moo tax kon buñ xoolee li fi xew léegi te mooy naafile gi ñu doon naafile ñu gis ne ña ko doon taxawee ay ndaw lan kon loolu day tegtale na suñu borom alxuraanam ji caaxaaniwu ko waaye day xool ñam koy dénk mu tànn leen kon ñam koy tànn dañuy gis ne kon boroomi xol yi sell lañu doon te mooy ñi doon naafile kon loolu day tegtale na kon eh, xale yi nga xamee ne ñoom suñu borom dénk ne ñu mat a fonk lan waaye ñu jata ñu jara ñu jara eh, jàppante lan ndax suñu borom leen dénk lu mat a dénk te mooy alxuraanu karim ñu ñaan suñu borom mu sàmm leen ñun ñëpp waaye te aar leen ba fan bëgg àgg si borom àggale leen fa naka doon def alxuraan bu delloo ci euh, sëñ bii rek dañuy gis ne alxuraan moom it lu ma a fonk la ndax suñu Tuubaa koo xam-xam ne yitteem jëpp dara waraloo ko lu dul sàmm alxuraan ndax yaakaar naa ne bu delloo ci histoire dañu ci mën a jëlee yu bëree bëri yoo xam day wane ne suñu ko fonkoon alxuraanu karim la ndax wax na ne. ku mosaa moo ko alxuraan ci ndaw ñi rek dalay fonk lool wax na ne am na benn ndaw bu masaa ñëw ci moom waaye lam ko njëkk laaj mooy ndax mokk nga alxuraan wax na ne bi ko ndaw li waxee mokk na alxuraan ne ko taril ma fu la neex wax na ne loolu sëñ bi da cee da cee bëgg lool ba tax mu yëkkati xale bi sax teg ko ci kaw waaye summi yëre yi mu soloon daal ko solal ndaw loolu waaye yemul ci loolu tamit yëkkati aw fasu naar góor daal ko jox ndaw lool kon loolu day wane ne moom suñu Tuubaa ku fenkoon alxuraanu karim la ndax ka ko fonk mooy suñu borom ndax suñu borom moom moo ko sàmmal boppam waaye sàmm googe nag da koo jaarale ci ay doomu aadama kon suñu borom muy da koy jaarale ci ay dënni doomu aadama moo tax képp koo xam ni suñu borom baaxee na la nga mokk alxuraan rek kooku ku jara ñee la waaye ku jara jàppante la tamit ku jara ñaanal la suñu borom bàyyi ko fi te wéeral ay cëram. te àggale ko fa ko bëgg àggale naka noonu alxuraan ku xam-xam ne eh, ci weer yëpp la nga ko baaxoo jàng waaye nag guddi gi ñu weer wi ñu nekk te mooy weeru koor da ci raw ndax wax na ne yonent bi alayhi salaatu ñëw ci weeru koor di nafaranteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam alxuraan karim kon loolu day tegtaleen alxuraan kon lu màgg la waaye nag fa gën a màggee mooy ci weer wii di weeru shahru ramadan al mubarak naka noonu tamit alquran ko xam xam ne lu bari ay ngëneel la waaye bari ay njariñ lool nga ngëneel yooyu mën nañ cee wax benn rek te mooy ràmm gi mi ràmm ëllëg yowmal xiyaam ndax wax nañ ne ëllëg weer wii di weeru kor dana taxaw ci kanam suñu borom daan yow suñu borom sa jaab bii kat maa ko tee woon lekk ci bëccëgu weeru koor maa ko woon a naan ci bëccëgu weeru koor kon maa ngi la ñaan nganamu ko alxuraan moom dikk feeloo ko daan ne yow suñu borom sa jaam bii kat maa ko teewoon a nelaw guddi kon maa ngi la ñaan nga ràmm ko te ñoom ñaar lu ñaan suñu borom rek faaw suñu borom da koy nangu kon loolu yaakaar naa ne koo xam-xam ne alxuraanu karim lu waay mën a lu waay mën a wut ci àdduna ak rek mën nga koo fekk ci alxuraan moo tax suñu Tuubaa daan faral di digle képp ku aji ci moom ngay tax taxoo jàng alxuraanu karim na alquran ci la lépp nekk kullu muridin bi yaloosu fal yu dim tilaawatal quraani li zikrin xadrusim kon loolu lépp day tegtale na kon alquran lu waay mën a bëgg rek mën na ko ca mën na ko ca mën na mën na ko caa sàkku ñuy soññ wàlle tamit mboolem ñi nekkee ci koñ bii nga xamee ne ñoo dëkk ak daara ndax ku wax daara xam ne daara suñ borom moo ko sàmmal boppam waaye nag sàmm googee ma ngi koy jaarale ci ay loxo kon ñi bokk ci koñ bi kon euh, war na ni jàpp ci daara ji bu baax a baax jàpp gi nag mooy fexe ba lépp loo koy jëmale kanam ñu nekk ca te mooy indi seeni kone waaye la ca war lépp ñu def ko fexe ba bokk ca ñuy sàmm alxuraan ndax suñu borom alxuraan ji da koy dénkaane kon fexe ba bokk ca ñuy suñu borom dénk alxuraan ngir bu ëllëgee mu mën laa boole ci ay nitam loolu yaakaar naa koo xam-xam ne euh, jar na ko kon xam naa dañuy jéem a tënk suñu kàddu foofu euh, di ñaanal ñëpp rek suñ boroom defal ñu feex waaye defal ñu aw yiw te yàggal fi ñëpp te weeral ñëpp te li ñuy sàkk ko ci weeru wi lépp suñu borom may ñu ko xam naa day delluwaat kàddu gi suñu moodu bu ko defee moom mu jàllale kàddu cant yoo xam day jógee ci jëwriñ ji di sëriñ Maam Sëriñ Bousso mu jëlee ko ci ndigalul xalifaam di sëriñ Alaaji Buso naa ñuy yemale foofu suñu kàddu salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Abdou Khadir yu am ñaan yàlla suñu borom defa ñu dégg ak topp ci barke si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ginnaaw loolu kàdd yi des muy kàddu yu cant kàdd yu cant nag bu ko waxee rek cant moom mënut a weesu cant sëriñ bi nee sant na bokki dëkkandoo yëpp ñi nga xam ne ñoo dëkk ak moom ci liñ koy jàppale ci liñ koy defal di ko defal daara ji di ko defal ci dongo yi lépp rek sëriñ bi neen gis na lépp mu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax a baax ni ko si Abdou waxe nag ci alxuraanul karim ak ki nga xam ne moo dëkk ak daara di yëkkati alalam di ca jëf di def mboolem lu baax rek lu mu xam rek di ko defal dong yi di ko defal alxuraan waaye lépp nag mu ko def ngir yàlla kooku ak payam saa yu dëddoo rek bu àggee fa mu jëm dana ko fekk te nag ku ci nekk ci ñun da ngay xentuwoo saa yu fi bàyyi ko ñi nettal nettali da la nettali lu rafet loo jëf kon nag ki xam ne dafa nekk ci dëkk ak daara di bàyyi xel bu baax dongo yi ak alxuraan yi kooku lu mu jëf rek na nga xam ne boppam da ko jëfal bu fi bàyyi ko ñu ko koy nettalil bu àggee fa mu jëm fekk fa lu mu jëfoon lépp ku ci nekk ci ñun rek war ngaa xëntuwoo loolu sëriñ bi ne nag koñ bi jàppale nañ ko bu baax a baax a baax ci donga yi jigéen ñi ñu ngi fóot di defar lépp lu leen war la nga xam ne ñoom lañu moom lañuy defal seeni doom yi ndëkkal daanaka lu raw loolu lañuy defal donga yi ci póot di leen jàppale ci lépp lu mën a doon waaye naan loolu loolu sunu borom gis na ko sëriñ bi gis na ko mu ngi ñaan yàlla suñu borom fay leen ngën gi fay ci barke Seex Ahmadu Bamba taxaw leen ci saahir ak ci baatin li ci desit muy dongo yi na ngeen dollee góorgóorlu bu baax a baax a baax ci jàng te xam ne mag ñi daanañ wax ne jàng yàggut ñàkk jàng moo yàgg daara boo fi nekkee ngay jàng alxuraan ci waxtu yëpp war ngaa góorgóorlu bu baax a baax fexe ba la lëfandi nga jot nga def sa kentulaay kattan góorgóorlu ci bu baax ba boo fa jógee rek loolee nga doon wut ci daara ji mën la amal njariñ ndax alxuraan dëndu kim nekk da koo gën a ci kim nekkut alxuraan day téere bu màgg téere bu boo xam ne suñu borom da ko fonk lool seet doxa di wax na ko kon nag ki koy jàng war naa xam bu baax li muy jàng mooy lan alquranul karim yu màgg téere bu màgg téere bu mat fonk nit ki nag balaa xam njariñu alxuraan mënu koo xam ci jamono ji muy jàng waaye saa yu demee ba nopp ci téere bi ba nekk ci ay yittee boppam ci lay xam nag bu baax lan la ko alxuraan di jariñ gise boo gisee mag ñi nga xam ne tolloon nañ ci mu jàng jàngun jàngaluñ leen wala jàngun bañuy bañ leen jàngaloo jàngun ba noonu laajoon tey nan nan def ak téere bi ñu ngi rëccu bañ ca tollee lu teewoon ñu jàng kon ne ku ci toll ku ne war ngaa góorgóorlu bu baax a baax ndax rëccu day ñëw tey booy rëccu war ngaa rëccu loo doon ñàkkee jëf ci jëf ju baax ji nga doon jëf lu tey nga yokk sa sa jom fexe gën a góorgóorlu loolu la ñuy rëccoo waaye di rëccu ba ma tollee ci njàng jànguma woon de loolu ku ne war na ko wattani ko kon na ngeen góorgóorlu lu baax ci daara ji sëriñ yi mi ngi perte temps am ci yéen comme li muy perte temps ci nag war ngeen cee bàyyi xel bu baax te xam ne bàyyi na këram bàyyi ak jabootam bàyyi léppam nekk ci yéen ngir lan ngir ngeen xam alxuraan mu nekk seen i biir yu dënn ñaareel ba it mi ngi taxaw ci wàllu yar di leen tërbiya loolu it war ngeen ci bàyyi xel bu baax démb rek maa ngi waxtaan ak sunu mbokk Serigne Saliou Bousso jëmm ne nekkoon na ci daara ji. nee naa ko su ma teewee ci kalamu maam sëriñ su waxee ba noppi man su ma jógee ci moom ba dem damay xam man dama dara damay xeebaar sama bopp gën a jaajuwaat te xam ne duñ dara ki mat matali ci lépp kooku saa yu teewee ci ci moom rek ba jóge fa rek da gën a dolli ko ci jëf ju baax loolu lañ jëf ju baax rek danga nga gën a dolli kon day jëmm joo xam ne ku nekk ak moom war ngaa jël ci moom ay jikko fexe roy ci moom ay jikko suñu teewee ci moom rek ba ba jóge fi rek dañuy rëccu dañuy rëccu bu baax dañu bëgg sax di di di tooga moom lu bari man dama koy bëgg lu bari kon nag war nañ ko bàyyi xel bu baax ci jikkoom ci melokaanam ci jëflante jëflante nit ñi bu gisee mag gone ku mën a doon rek xam xamu kii gone la mu mag la wax ju rafet ñëpp la koy defal da ciy laabir lool man laa tàggat man laa wax wax joo xam ne dangay xam ne kii am na lu mu la yéene ci ci lu baax yéene la nga jub yéene la nga tege ci yoonu siraat mustaqim ñun ñi ay rakkam di ay doom ñun loolu lañuy waxtu wu ci loolu la ñuy la ñuy kon nag sëriñ ñi ngi lay sant bu baax ci sa taxawaay di ñaanal dong yi ñaani suñu borom subhaanahu wa taala ci barkeb weer wi suñu borom dafa leen ndimbal ci saahiran wa baatinan ba li ñu sàkku ci daara ji muy alxuraan ak xam-xam ak njub ak yar si borom yombal lépp ci seeni xel ak seeni xol ak seeni dënn barke suñu Tuubaa di ñaan ñu bokk ci mag ñoo xam ne mag ñuy dundal islam yi doon ñuy nit alxuraan di xaafis alxuraan yoo xam ne saa yu ñu fi génne rek ñu xam ne ñii de yar nañ leen teg leen nañ ci yoonu siraatu mustaqim jubbanti nañ leen kon nag na ngeen gën a góorgóorlu bu baax lu lu baax nag yombut bala nga cay am la nga ci bëgg rek faw da ngay sonn faw da ngay sonn daara ji ñi ci nekk xam nañ loolu da ngay yeewu njël di jàng di jàng marax di jàng ngoon di jàng suba waaye lépp ngir alxuraan ji nekk sa biir dënn la kii yorob yaram it taxaw ci digg mbaar mi soxorut iñaanut daa bëgg ngeen xam dara rek kon nag nañ gën a góorgóorlu bu baax a baax gën bàyyi xel bu baax yéen dëkkandoo yi na ngeen bàyyi xel dongo yi bu baax loo leen jàppale ci lu baax loolu doyut da ngeen góor lu baax ci jàppale leen bu baax sëñ maam sëriñ mi de saa yu teewee ci ci ci kanamu sëriñ bi daf koy day àggee jàppale gi ko waa koñ bi di jàppale ci daara ji loolu it si si si nga lu fàllilu nee na bu bu ko mënoon mooy ñëwal boppam moom mooy ñëwal boppam waxal jëlal boppam kaddu santal leen boppam waaye nag jamono moo moo moo ko muy yaram wu xaw a sutante moo tax mu yabal ñu mu yabal Sëñ Abdou Khadir mii mu teewal ko fi waaye ne bu ko mënoon mooy ñëwal boppam du ñàkk bis mu ñëwal boppam ndax lu rafet li muy dégg ci yéen ci waxtu wu ne ak saa su ne loolu daf koo yéem kon nag na ngeen gën a lu baax baax te xam ne jëf ji ngeen jëf Sëriñ Tuubaa ngeen ko jëfal jëf ji ngeen jëf alxuraan yi ngeen koy jëfal du ngeen ko rëcc mukk mukk mukk mukk mukk ki nekk ci koñ bi di jàppale dongo yi waxtu wu ne kooka boo ko gisee ak jabootam rek da xam ne kii mi ngi jàppale wax mi ngi jàppale dara ak jabootam dañuy jub dañuy bëgg lu baax nangu caa kon na ngeen góor gën a góorgóorlu bu baax a baax ñu ngi sant bu baax di sant sunu sëriñ sunu xalifa di ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko di ñaanal waa koñ bi ñoom it mag yeeg ndaw ñeeg ñëpp rek suñu borom yàgg leen fi te wéral leen nangul leen seen jëf waxtu koor gi ñu nekk it ñaan si borom lépp luñ ci wor lépp luñ jëf ci lu baax mu néew mu bari yàlla na ko suñu borom nangu ci barke suñu Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wasalaatu wasalaam mbokk yi ginnaaw bi nu santee borom bi subhaanahu wa taala noo ngi julli ci ti bi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di jël suñu nuyoo bi ak uh, ñaan yëpp di ko sof ci uh, kàddu ko sëriñ bi mu mel ne ñi ngi jég lu baax kàddu yi ñuy yëkkati waaye ñu ko yëkkati ci turu suñu waajur uh, sëriñ Baye Koso Jaw nga xam ne moom moo nekk ci bopp ci magi koñ bi mu ne mi ngi sant bu baax sëriñ maam sëriñ di ko ndokkeel ci jataay bu màgg bi waaye di ko yóbbante am nuyoo ak ay ñaan mu jëbaleel ko ci sëriñ alxaaji Fàllu Buso di ñaan yàlla mu yàggal ko fi ba li mu yéene lépp mu eggale ko te lépp nu ànd moom mu ne mi ngi leen di leeral ne maam sëriñ bokk na ci ñi nga xam ne danañu day sëkk ca bayit suñ tuwaaya nee dëkk gi mu dëkk ak moom moom nee na mi ngi euh, xelam mi ngi dem ci la sëñ Tuubaa doon ñaan. nee na loola sëñ maam sëriñ mi dugg na ca te loola li da ko da am firnde bu leer ndax ne sëñ Tuubaa ñaanam googee euh, dafa nangu-nangu goo xam ne daane ko côté boo duggee rek danga naan euh, fii la waaye ñun mën nañ cee joxoñ sëñ maam sëriñ ci ñaan googu mën duñ sori duñ duñu jaral ñuy génn fii waaye mën nañ koo joxoñ daal ne ñaan gi nangoo na ci moom. kon ñu ngi koy ñaanal yàlla mu yokku yokk ko te dëgëral ko te aar ko ñaareel ba it nee na maam sëriñ li tax nit ñu mën a ànd ak moom nee na gis na ko ci moom te mooy li jiitu mooy euh, insaan yi mooy nite xam nga nit euh, dafa dafa am loo xam ne léeg-léeg dañ naan nit boo toogee moom di wax li bank ab tànk daa bënkut am xel waaye nag maam sëriñ mu mel ne ba ñu dëkkee ak moom ba nag nekk ak moom liñ gis ci moom lépp daal mooy wax dëgg yàlla doy nañu sëkk sëkk sëkk ne ku mat a àndal la waaye ku euh, laabiir la ku yaatu la li ñuy wax insalaahu sadro boo ñëwee da koy fekk ci moom mooy dënn bu yaatu yéene ñëpp jàmm te lool dana yomb xam sax léeg-léeg ci nit ki saa yooyu jàkkaarloo moom ci xar kanamam da ko ci mën a xam kon daal nee na kàddu yi mu gudd ak mu gàtt mooy mi ngi koy ñaanal fan wu gudd wér yaram aaju faju li mu yéene lépp mu eggale ko euh, nee na li ci ëpp daal mooy wax ji li tax mënut a gudd mooy dafa jóge ci ab xol moom moo tax nga xam ne daanaka du jaral guddal ci lamiñ ak yooyu aqulu xawli hada wa astaxfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin mbokk yi xam naa ñi ngi jégalu bu baax jotaay bi xaw naa yàgg ñu ngi koy jégalu bu baax a baax kon kàddu yu gàtt rek daa mënta ñàkk waaye sëñ Moodu ak sëñ Jiili ñoom wax nañ ni mata wax lépp mbir bi daal li ko sabab mooy weesuut sëriñ alxaaji Fàllu Buso wala ma nuyoo ba noppi sax kon ñi ngi nuyu mu Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan suñ boroom yàggal ko fi lool te wéral ko ba naalam yii mu naal ci Tuubaa gii mu àgg te bu àggee njariñul jullit yëpp la waxuma la murid yi waaye njariñul jullit yëpp la kon nag yàlla na àgg mu fekke ko te jariñoo ko moo noppee teg ci nag alhaaji fàllu bu so xalifa sëñ ibrahima bu so mi nga xam ne moo fi yebal délégation bu mag bi mel na ne gënoon nañ fee bari sax am na benn conférence bu am boo xam ne moo tax ñenn ñi ñëwuñ waaye yéen itam maa ngi leen di wax ne leen bu ngeen demee ca alaaji Fàllu xalifa sëñ Ibrahima nee ko ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ñaan suñ borom yàggal ko fi lool te wéral ko moo ko ay rakkam ñoom ñëpp eh, yëttiwoo gi ñu yëttiwoo liggéey bi xam dañ ko bu baax a baax ndax barki démb rek moom alxaaji Fàllu bu su moomu yónnee na fi ay xeewal yu bari ñu ngi ko ci sant di ko ci gërëm tey lii kilifa moom lii rek la man maanaam soññee kon bu yëkkatee ay nit ne leen dem leen ca daara ja soññal ma xale ya man man man man magum jëmu laa mosuma motuma soññ man waaye xale yi ñoom mat nañoo soññ mat nañoo soññ bu baax a baax ndax ñoom xamaguñ li ñuy def lan la kon looloo tax ñu ngi koy sant lool bu baax a baax ci lii nga xam ne def na ko moom Alxaaji bu so di nuyu nag askanu Mbàkke wépp askanu Buso bi wépp ak taalibe yépp ak dëkkandoo yépp rawatina sama dëkkandooy bopp yi nga xam ne nag moom bu liggéey bi tegoo ci yoon jàpp nañ ci bu baax a baax ak nag ñeneen ñoo xam ne ñoom yaakaar naa ne ci leneen lañ leen di tudd seeni tur bu laa laajee dama koy jaral sax bu laajoon ñu fay ci xaalis bi baree bari ñi tax ma mën a toog fii jàngale wax dëgg yàlla ñooñu waxtu wu ne mën nañuy sant bu baax a baax duma mën a tudd seeni tur fii waaye xëy na dana am foofu dan foo xam ne dana ko fa mën a jàllale xam ngeen ne daara coow yi bari na ci lool waaye daal man am naa ci at yu yàgg yàgg waaye man gis naa ne mett rek la def daara day bu fekkee ne njàng ma baax na dëkkin wa baax na dund ba baax na coono ba bari na waaw milliard boo ko amoon tam bu jàng mi dee tegu ci yoon ñu xale ci boppam moo tolloog ne moom euh, ku ñuy jubbanti rek la moom waaw faw ñu jubanti ko kon nag suñ fi mënee toog ña nga xam ne ñoo tax ñu mën fee toog ci ñu baree bari lañ ñooñu de war nañ leen sant gërëm leen ndax mosoon naa ko fee wax ne kat ah daara ji nii ñu ko gisee nag itam euh, da cee bari ñoo xam ne seeni loxo jotut seeni ginnaaw kon nag ña nekk ca àll ba te amuñ fay doom di fi def lu ne bañ mën a toog jàng man ak ñoom ñooño mën na leen mën nañoo sant bu baax a baax a baax a baax ndax ëppuñ leen aw yiw ci mbir mi ñu yaatu yiw la ñuy doon. loo ñooñu danañ leen tudd bu soobee ci beneen anam ndax dafa xaw a gudd. boo noppee nag teg ci waa koñ bi jël ko sama nuyoo teg ko ci loxol suñ kosom yi ak suñ am sëg yi ñoom ñii ak suñ seex sekk ñu jàllale ko ci waa koñ bi rawatina jigéen ñi. jigéen ñi dey am na fi ay mbootaay yoo xam ne wax dëgg yàlla damay rus sax bit bu set dama naa leen danaa leen dajale fii defal leen seen waxtaanu bopp tàmbalee ci um, ñoom soxna Ndumbeek soxna uh, kii uh, nu mu tuddati soxna nday bay ñoom ak soxna ami mbay ñoom soxna nday jóob ñoom ak ñoom ñëpp lépp lu xew ci daara ji rek dañuy dikk amul lenn loo xam ne danañ ko soxla te dikkuñ taxaw ci ba mat sëkk ñoom it duñ beneen yoon danañ leen mën a dajale fii waxtaan ak ñoom ndax kuy def lu baax kat war nañ ko wax ba waa jëf sëñ Tuubaa Mbaay itam lu bare bari ak sëñ Muntaxa Mbaay ñoom ñii rakkam ak Baay Màggat Mbaay ñoom ñoom ñëpp euh, ñuy yitte woo barab bi lañ fi la ñuy jullee kon nag damay bañ mu gudd naa ko yamale foofu cant du doy waaye danañ waxtaan ak kii nga xam ne moo yor média bi sëñ Fallou Galas si la ak sëñ Fallou si la mii nga xam ne moom la fi yabal si mosoon nañ fee jàllale boo xam ne wax dëgg yàlla ñi ko seetaan ci àddina si yaatu na xam naa danaa ci waxtaan ak ñoom daal ba ñiy def ñu baax lépp ñu mën leen a jàllale fii ndax ñu defuñ conférence woote wuñ conférence eh, gi rek la am occasion wane xale yi bu jeexee jeex na kon nag looloo tax danañ ci toog ak ñoom ñu waxtaal seet daal nuñ ko defee ba nga xam ne euh, ku ci war a feeñ rek da ci feeñ incha allah maa ngi sant ñëpp di gërëm ñépp kon genn kàddu rek moo ci des waa koñ bi ñu jox leen ñoo xam ko jël kàddu gi lu mu gën a gàtt rek gën ndax dafa xaw a guddi. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi lii mooy li nga xam ne moom lañ leen jëlee woon fii ci daaray sëriñ maam sëriñ Bousso di Taysiir nekk ci yoonu baxdaat bi di daara joo xam ne dañu fiy jàngale alxuraanul karim ak yar ci yarub lislaam mu nekk daara joo xam ne nag euh, ki nga xam ne moo ko yore di sëriñ maam sëriñ Bousso am ci taxawaay bu am solo ndax loolee lañu fekk ci barab bi mu nekk nag barab boo xam ne laaj na ñi nga xam ne ñoo bëgg di jëf lu baax di jëfal yàlla suñu borom ñu koy def ci barab yu mel nii muy daara alxuraanul karim yi ndax daara ji nekk na daara joo xamante ni référence la ndax ndongo yi nga xam ne ñoom ñoo fay jàngee ñu leen taxaw bu baax a baax ci seenum njàng ci seenum nekkin loole nag am na lu bëree bëri loo xam ne laaj na ko ci sunug seetlu bi ñu fa demee loole nag laaj na ñi nga xam ne ñoom ñoo di kilifa yi ak képp koo xam ne bëgg ngaa jëfal yàlla suñu borom nga mën koy jëf ci daara yi ndax nii ngeen déggee xale yi di ko tare alxuraanul karim ji jiite naa fi léegi nekk na loo xam ne lu am solo lool la kon liggéey bi ñu ngi ciy woo mboolem jullit yépp ñu jàpp ci bu baax a baax di leen santaat bu baax di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu